présidente Fatoumata Niaba, Ba euh, allié du euh, président Macky Sall Il y a depuis 2011 Je ba léegi mi ngi ànd ak moom ko ci politique le euh, présidentielle 2012 yàlla dogal ñu ànd yàlla may ndam législative 2012 aussi la même chose locale 2014.

xaaru ci dara def ans quelque ci sa alal yu bare bare bare bare bare bare bare ñi tamit ci lu bare bare bare bare bare yu ne ngeen daj ko ci ne bu dul considération bu ci am bu ci am bu madame la présidente euh, chaque année dina deux courriers euh, demandé pour gis président waye fi ma wax ak yeen du mujj soti te ku ne xam na li mu daj ci président Macky Sall euh ñi nga xamne ñoo doon xeex président Macky Sall sax bo xolé ñuy gëna ñuy gëna considérer ñom lañuy gëna taxaw que ñi nga xamne seen lepp mom lañ ko jox bi loolu amé nak ñi nga xamne ne ñoo ñoo ñoo nekk ci parti am ñoo ci bok ñoo yàgg wax ak mom ne ko li mom xañ na du mëna wëy à chaque fois nak mom day wax ne dafa ànd ak moom te yàlla tax day dalal gars yi di leen wax ne leen euh, jaru ko comme tey nag ñoom ñoo ñun ñoo jël suñu initiative bopp jël suñu engagement bopp bëgg koo xamal bëgg a xamal tamit président de la république ne ko bu fekkente ne mënuta yokk considération wax ak surtout waa cabinet politique am ndax boole na ko ak ñoom am entreprise mais ba fi may wax ak yow euh, amul lenn loo xam ne nii sotti na ci bu fekkee nag mënuñu mënuñu xoolaat euh, doxalin bi gën ni ñuy nekkee ak moom euh, parti bi ak waa coalition bi moom dinañ xoolaat seen seen bu baax ndax nekk pendant plus de huit ans lu ne nga def ko ci say oto yàqu sa alal jeex ci élection yi jot nga génne say moyens mobiliser ko euh, ñi nga surtout parrainage bi aussi ba may wax ak du li nga du du du du fi ñu la war a teg ñu teg du li ñu la war a jox ñu jox la ko day am loo xam ne nii moom lay nuru moo tax daal waa parti bi ak euh, coalition action patriotique bi yëpp ci sama kàddu ñoom ñu ne daal na nañu xoolaat ànd bi nañu xoolaat ànd bi su loolu mënul am ñoom dinañ xoolaat seen taxawaay xoolaat naka lañ ci naka lañ ci def loolu daal mooy l'essentiel lu

waaye comme moom nit ku nit ku am ngor la nit kuy sàmm kàddoom la nit la ko xam ne lu muy dugg da ciy dugg au fond chaque jour mu ngi defal gars yi ne leen amul solo mais nag ñi mu àndal tamit mënatuñ ko mënatuñ ko mënatuñ ko bàyyi mu bëgg a noonu. du nekk loo xam ne ni luy mën a continuer lay doon li am kay mooy ñu xoolaat kenn ku ne lii sa cër sa taxawaay euh, comme bu liggéey jotee bu ñu soxlaa euh, dañuy ñëw ci moom wax ak moom taxawu ko moom lu mu man mu def ko ba man lu mu def ak ñi mu ñëpp. yaakaar naa ne considération bi war nañ ko mën a gën a mën a yokk war nañoo gën a mën a taxawal li nag premier état la boo xam ne nii defagul nañ ko am na yeneen yoo xam ne nii moo nekk ci moo nekk ci suñu kanam incha allah.